Abdou Sarr euh, doon le représentant de Avenir Africain Associé trois a bon ki ko jiite di Abdoulaye Madi Ndiaye Abdoulaye Madi Ndiaye nag c'est un ingénieur avionique waaw moom tabax avion mooy liggéeyam euh, jiite na ay programme yu mag biir Europe Europe dénkoon ko tam ay mandat yu am solo pendant dix ans macha allah mu bokkoon ci complexe militaro industriel kookoon nag wax dëgg bokkoon ci candidat à la candidature yi Euh, bi ñu demee ba gis ni mbir mi di doxee xam ne loi wu parrainage bii euh, loi bu injuste la ñu ne ah ñun nag du ñu bokk ci élection boo xam ne euh, loi bi ko tëgg ah loi bi ko tëgg loi boobu dafa injuste waaw parce que képp ku fi mënti toog itam doo fi toog ci légitibité waaw ñu ñëwoon fi tey nag ci dialogue bi ñëw wuyu si président Macky Sall gannaaw bu ñu rafetloo woote bi ñu wuyu si vraiment participer ci waxtaan bi waaw dégg fi tam ay proposition yu am solo yoo xam ne buñ ci tënkoo ah dina tax eh, sunu réew am jàmm ji nga xam ne moo waral woote bi yëpp. waaw euh, euh, au delà de cela lan moo doonoon seen proposition ci li nga xamante ni mooy les deux cas. Hmm. maanaam la poursuite du processus électoral. Hmm. et la fixation de la date euh, ci li nga xamante ni moom mooy élection présidentielle bi. waaw premier question bi laa bëgg tontu ba pare ñun dañu jàpp ne loi bi dafa injuste. Euh, kumba am député ak kumba am amul député moo fi am ah, dañ la laaj parrainage dañoo laaj euh, candidat yi ay parrainage dañoo waroon a yemale ñëpp mais imaginel ku mel ni euh, candidat du ma tudd turam treize députés lañ ko laaj ci benn liste benn liste lay remplir beneen candidat ñu laaj ko cinq mille feuilles alors que kële benn feuille lay remplir donc foofu noonu yemale amu fa n'est-ce pas ki nga xam ne mooy remplir benn feuille parrainage kooku en trente minutes la koy def mais ki nga xam ne day remplir cinq mille feuilles de parrainage kooku dina def le tour du Sénégal avec tout ce que cela comporte est-ce que est-ce que euh, d'une manière aussi il n'est pas de votre devoir d'accepter que kooku hmm. am na possibilité am na pouvoir bu ko permettre mu mën a am treize députés effectivement mais euh, la non exclusivité du mode de parrainage tam dañ koy ŋàññi waaw parce que bu dee yow treize députés nga am bëgg treize députés yooyu daal di la parrainer mais da nga cay yem mais dañoo jël seen treize députés remplir ba pare ba am seen i parrainage ba jàll ñu wàccaat ci parrainage citoyen pour lan pour euh, xañ maanaam euh, yeneen candidats yi nga xam ne parrainage citoyen la ñuy wuti ñu xañ leen ñu matal ak itam euh, bëgg maanaam doublon yi bari loolu tam dañ koy ŋàññi bu baax a baax. ci loi donc yéen vous êtes pour li nga xamante ni mooy la reprise du processus électoral ñun ñun ñun. dañu jàpp ne loi bi dañu ko waroon a dajji recommencer lépp à zéro. d' accord loolu la ñu jàppoon ñun. d' accord waaw donc euh, ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm di ko sant alors.